Baba Baba tey ñu fekk la fi nga xamante ne moom euh, musée bu Grand Théâtre euh, si soixante-dixième euh, anniversaire de la proclamation de la république bu Sine tey sa teewaay fi nga xamante ne moom mooy bés bi. waaw kii waa Sine samay xarit lañu et puis culturellement dañu nekk ñoo xam ne dama yàgg seq ak ñoom ay collaboration bi ci mujj mooy bi ñu def il y a quelques mois fii au niveau du Grand Théâtre avec benn collectif de plus de soixante-dix artistes yo xamni dañu ñew ñëw euh, ñëw ànd ak ñun bokk soirée bi euh, organiser ko interpréter seeni chanson interpréter samay chanson mu nek nak buntu bo xamni bi dañ ko bëgg ubbi pour euh, relation entre la Chine et le Sénégal sur le plan culturel pour yenen génération mën la Chine réew la boo xam ne na wone Sénégal davantage mais Sénégal aussi réew la boo xam ne na jox sur Chine culturellement lo xamné li jot ko won na xam ci sur le continent africain. en tant qu'ambassadeur, tay tey naka nga gissé li nga xamantene mom moy collaboration au Sénégal ak Chine. wa xam nga euh, collaboration Sénégal ak Chine sen bo waxee te da ngay wax marché donc njënd ak njaay dafa am importance mais njënd ak n'y nak ñaara a koy doxal xam nga Sénégal aussi comme ni ma ko tout à l'heure euh, bëgg nañ jënd bu baax ci li nga xamné mom lañu de proposer mais ñun ci yeneen domaine surtout plan culturel am nañu lu bari loo xam ne ñu mën nañ ko won laa seen wala jaay ko waa Chine mu mën a yegg ci àdduna bi mais nag euh, je pense que la Chine maa ngi koy wax ambassadeur léegi au moins euh, relation la boo xam ne bi c'est c'est du concret donc dañuy def nga gis donc euh, leneen li nga xam ne lu moom moo ci topp loolu diggante ay gouvernement la ñoom ñoo xam lan la ñuy signé seen diggante mais en tout cas ci li nga xam ne dañ ciy teg suñu bët xamnañu bu baaxa baax amna ño xamni la Chine arrangé na len